Euh, ay da ay da Ndiaye alors euh, buur Gueweul euh, Moustapha Toob dafay wax na il faut remuer la langue cette fois avant de parler est-ce que mm. tey ci kilifa mm-hmm. ça suffit seulement laa bu laaj boobu comme question ça suffit nga wax lu ne ñoom ba pare taxawaare ne ne baal ma dama jégg dama dama juumoon ci ci ci ci kàddu yi daal mm-hmm. est-ce que loolu rek doy na pour Sénégalais mën a xam nga Samba juñu juñu nañ ko fi keroog sax defe naa avant condamnation bi di am. Mhm. waaye laajte loolu rek ñu remercier Moussa Bey ci euh, maam la ci élément bu rafet boobu. di seen si journée Zikroulah bi. Mhm. journée Zikroulah bi lu tax di ci revenir am solo. Mhm. mooy sëriñ bi dafa jàpp ni que ndort yoon wi. ak euh, berso bi nga xamante ni moo te yoonu murit. Mhm. Euh, mën nañu wax ni que mooy Baay Faal yi. Mhm. te mu gëm ni que fi réew mi toll. Mhm. ñaar bi moo ko mën a téye ngir ñoom jàmm. mooy jàng alquran ak zikrullah. zikrullah na nag euh, amul keneen ku ko moom amul ma sàmm amul ma dem. mooy zikrullah kenn rek ngay bàkk. muy yàlla subhaanahu wa mhm. di ñaanal Cheikh moom bi mun taxa ak yoon moom ay Serigne Modou Mbenda mhm. moom mi nga xamante ne que tey moom moo toog toogaay maam Cheikh Ibrahima Fall mhm. en tout cas nekk journée bu bu ama ama am am am solo xam nga Samba keroog defe naa ni euh, bokk nañ ci ñun ñu njëkk relayer l' la le cas de Birame Souleye euh, sur Dakaractu euh, d' accord na erreur am na jéggalu na ne dafa juum waaye bi mu waxee rek subitement dama li mu wax c'était trop dire amul dara lu ko justifier tey cette violence verbale là c'est pas la première fois ñoom de leur part wa ma shahidna illa de la part de l'État souligné naa fii keroog ay cas yu bare bare bare bare bare politique du du du du discours bu drastique pour atteindre yow sa objectif politique débat d'idées le wala boog la bataille des idées mais yéen ñi le a de Macky Sall yow diw ak diw ak diw moytu len. di lekkee këram sax ndax mën lañ leen fa posé na c'est trop dur maanaam Manam limu wax c'est le discours n'est pas sénégalais Deug rek la bëgg le discours n'est pas n'est pas sénégalais mhm. Birame Soulay est un très grand intellectuel mais des fois, nous, politique, ils se laissent emporter par le feu de la politique. Des émotions. Wow. Madame, nous voulons atteindre, mm-hmm. atteindre ses objectifs. Mm-hmm. Tu vois ce genre de discours-là euh, Même Ousmane Sonko, je n'ai pas aimé ça discours. man dëgg rek laay wax te yàlla tax mm-hmm. mooy soo ne suñu validé wul sama candidature réew mi du am jàmm d'accord uma foofu ci loolu parce que réew mi bu amee jàmm bu ñàkkee jàmm ndax candidature Ousmane Sonko am na ñoo xam ne ils ne son ni intéressés par Macky Sall ni par Ousmane Sonko. donc bu réew mi ñàkkee jàmm ñan ñoo ci perte. ay jigéen. ay xale. ay màggat. ay institution ay entreprise yu jàmbur. ay commerce yu jàmbur ay nangam ak naam donc il faut qu'il recule un peu. d'accord il a le droit de maintenir peut-être que la pression. Mhm. face à Macky mais ban genre pression là war a mais j'ai pas le mot du du maanaam réew mi du am jàmm bugguma baat boobu ci ci un leader mm-hmm. euh, qui aspire à devenir un président de la République demain donc pour maintenant na endosser wala condenser un peu ses discours daal comme dose matinale pour que le Sénégal yi am ci moom yaakaar mm-hmm. yaakaar bi ñuy am ci moom mooy kat kii kat su fi faloo suba mm-hmm. ñun Sénégal yi dinañ am ku ñu protéger ñun Sénégalais yi dinañu am jàmm. surtout jàmm ndax Cheikhul Khadim nee na jàmm. gisuma lu ko gën fii. ci lépp xëy gisuma lu moom ab tubaab la nee na. Euh, qui aspire. après mu ne nee na nee na nee na la discours nee na on va dire